Hmm. jaay yow. yow yow yow yow war nañ bu ñu wooree amul nelaw bëccëg. Hmm. nee na bu ñu wooree amul nelaw bëccëg. rek. ku yow doo julli doo julli gisuma la nga julli fenn yoon. nekk fii di nelaw di nelaw rek. ba nijaay. Hmm. yow yow sa jabar yi foo ko takkee. <laughs> ko dangaa bandi de ndax da nga waroon formé comme comme ni ngay def noonu di takk jabar rek di bàyyi dégg naa dëkk ba tamit am nga fa yeneen yeneen jabar yu bari. man mën naa noppi koor dañuy waxtaan waxtaan koor. dàqante wu ma ak yow koor. Hmm. dàqante ak sa yi. Hmm. Hmm. dem ci duus man. duus rek nga bool duus bool duus lal bool duus lal man li ma yàlla indi laa xamul lan la billaay bu ma bokkul woon ak seen ndey ndey ak bàyyi génn naa leen bu yàgg wala man dem naa tukki kër gi seen ndey leen ko bàyyil amu leen ku ngeen fi dëkkal xaw ma nu ma leen di def man dama leen war a bàyyi kër gi dem sama yoon dëkk ak ñaari punkal li dof yoo xam ne bu kii bu màmmee jëm na la kële màmm aw na la mënoo leen bàyyi say jarbaat lañ lii xaw ma lan la yàlla. ñu ngi fi sant wa. man Guèye. Guèye. sant wa. d'accord Sam. na nga def. yaa ngi ci jàmm bàyyi jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm mbokk yi. mbokk yi Pikine. ah Pikine la jógee. waaw waaye kàlla alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm waaye. ba dugg toog. na ngeen def. man damay amal ma kii sees ma si sees. waaw ma ko na nga def. waaw ñoo ngi fi baax na jàmm. ñu ngi ci jàmm baax na jàmm rek. waaw papa tey jox ko waaw waaw waaw toogal toogal toogal toogal toogal. jërëjëf Seck jërëjëf. ñu ngi ci jàmm. ñu ngi lay baal kàlla ñu ngi lay baal kàlla. waaw papa tey dañ koy jaaroon. waaw. dañ koy teewal waa nguur gi. nguur gi waaw. waaw ku nekk gis na temps yi dëkk bi ni mu demee nii. Mm. coono gi dafa metti mm. métti na torop hmm. ñu dugg fi nag ci kër yi. Hmm. pour sensibiliser nit ñi. sensibiliser maanaam. ndax feebar bi am fii ci dëkk bi. ah mbas mi mbas mi. tooy kër gi. Hmm. ak njaboot gi. ci wàllum cet gi. cet gi waaw waaw waaw. Ah, ba pare tamit. nguur gi dañoo joxoon ay ndimbal. waaw waaw waaw ndimbal waaw. pour tey ñu dugg ci kër yi. Ah, di leen ko fa jox mu néew wala mu bari. ndimbal kay moom du du du du du. tuut. waaw waaw jarul xeeb jarul xeeb. waaye hmm. ñun def nañ suñu kéemtalaay kàttan. Hmm. ba kër bu ñu dugg rek. Hmm. am na lu ñu fay bàyyi. dëgg la tey nag moo taxoon ma ñëw fi. pour bëgg tey ma xam tey kër gi. doomu aadama ñoo fi yeewee. sama kër gii nii kër gi waaw. man la mën a jot ci man la daal. Euh, sama soxna. ak sama ñaari jarbaat. Ah, ñoo fi man sama soxna ak sama ñaari jarbaat. dëgg la la ñeent lañ. papa yow tur bi. man El Hadj Saa Neex Samb laa tudd El Hadj Saa Neex. Samb waaw. Ah. bëggoon naa gis soxna si nag. soxna si. waaw. Hmm. Mhm. jaru ko bindal turam wala. xam nga li ñuy liggéey dafa sensible. Hmm, waaw waaw dafa sensible waaw waaw waaw ah, bëgg daal jàkk rek. waaw kay dañoo bëgg. kaay kaay kaay kaay kaay wuy waa nguur gi. waa nguur gee fi yónnee ci yëfi ndimbal waaw waaw sama soxnaa ngi nii. wax ko baax na baax na waaw. jërëjëf ah, eh, kii kii toog ni man eh, yow ma numbe. man ah, def nii moom doy na waar di këriñ gi ngay diw nii. Eh, wax ko. lan laa koy wax la bokk ah. waaw sama jarbaat. ah ok. te dañoo ñëwoon pour indi ay ndimbal ci kër yi. lu sama yoon. Hmm. lu sama yoon ci ay ndimbal. waaw pour feebar bi moo tax ñu leen di dimbali xam nga nit ñi liggéeyatuñu seen liggéey demeetul noonu. léegi man loolu sama yoon. ku ci xam dara. wala. sa tur ak sa sant. sa tur rek laa soxla instant. sa tur laa soxla yow. man waaw. man Fatou Gueye laa tudd. Eh, eh, eh. moom sax dafa mignon. dafa jar baat la. ne fii ne fii bii sa baay laa ko doon ne sa baay sama fans la woon. da woy di def laa ma woy ko. doy na dama toog dama toog. mën nga maa jox sa tur. sama tur yow joxuma la sama tur looloo doy loolu ma jox ko am jaay. doo ko wax sa tur. Hmm. Bineel Bineel Bineel man mbee <laughs> man mbee dégg nga. kii tamit sama jabaar la. kii nii nii. waaw sama jabaar la. waaw waaw sama jabaar la. dëgg la kay. waaye si ñoom nag papa yow il faut ñu dimbali la. waaw waaw waaw man mii ma waaw waaw maa yoroon maa yoroon. lan. dossier. lu sa yoon ci ci dugg ci dossier xanaa dugg. mais sa sa yi dama la ko def dossier. bu dee ba